dialogue bi. mu ngi nekk di di mu ngi nekk en en cours euh, mu am déclaration bu am solo boo xam ne président neen dina ko def euh, bu dialogue bi di jeexee mais Ahmed euh, avec le recul jàppoo ne seen boykotu dialogue bi erreur la. waaw mais xam nga may dialogue bi dafa amul lu bees may dialogue bi parrainage bi lañ xalaat ne nañ ko fa waxtaanee. dialogue bu amul ay terme de référence. si terme de référence ñu ngi koy defar léegi mu génn. may may respecté woo ñu. lu tax non ñun ñu de. lu tax ñi mag yi woo respecté woo leen daal pour ñu dem ci dialogue. ñu ngi defar terme de référence yi non non non xam nga xam nga may. ñu ngi waxtaan après dinañu dégager les termes de référence. c'est du sérieux man am na loo xam ne maa ngi nekkoon ci rajo bi maa ngi naan bu ma delluwaatee ci rajo bi est-ce que man sax loolu comme ni ma ko doon waxee noonu. est-ce que dinaa ko ne waxee parce que peut-être xamuma woon état la mairie est un démembrement de l'état sama ab bii ma fa def nii may jàng naa lu bari. Mhm. même ni may doxee léegi biir géejuwaay sax. da ko changé dama koy xoolaat. kon erreur yi nga def ca installation ba doo ko del doo ko dolliwaat. buñ ko defee ma defaat. nekk foofu xeex buñ ko defee. ah buñ ko defee politique moom lu ñu laaj rek man amee na ay dara ma def ko mais bu xasee ba jeex bu xasee ba jeex. non da naan Ahmed mi moo gën a ragal Ismaïla Yacine. mais pour en revenir au dialogue. dama ne waa mais may xanaa man boo may woo ne ma kaa ñu wax di ma wax ne ma léegi nag voici l'ordre du jour il y trois points le stade il aussi euh, nu mu tuddati euh, la piscine olympique euh, information divers nga yónnee ma ko ma ne ñun lii la ñuy waxtaanee ma wut ci man dara man ñëw toog mais yow ñëw leen ñu waxtaan waaye li ñuy waxtaanee après ndaje mi di ngeen ko xam waaye loolu ban sens la. déedéet Ahmed Ahmed. doo jël doo may yow yaa ma wax léegi nga ne ma terme de référence yi ñu ngi koy defar. waaw xaaral ma expliquer la peut que. dafa naw dafa nawloo man su ma la wooyee waxtaan. peut-être du ma la imposer ordre du jour dama la naan Ahmed kaa ñu waxtaan boo ñëwee ñu waxtaan ñu xool lu ñuy génne ci waxtaan bi. non non non moom moom Macky Sall sax wax na ko. non non may gis nga may may may may caaxaan faaxee waay may mun a nduur fay yow séeréer nga <laughs> caaxaan faaxee caaxaan baaxul yow yaa ngi may woo waa man léegi man man waa man léegi léegi man su ma doon dem ci dialogue bi man day hmm. man damay ñëw rek toog. non dangay ngay wax li nga bëgg ñu waxtaanee. yow nee nga am nga am nga am am nga am nga am nga ku ñu tëral deret bi di fus mën nañ ko sauver am na koo xam ne dañ ko ñàdd rendeeguñu ko mais nga yóbbu foofu loolu ci ordre du jour bi non non defal ndànk rek xam nga gis nga république lu sérieux la nekkul fowukaay nekkul ay affaire u euh, taf yëngal ay ay kii euh, ak coow li fi mu toll nii il faut moo woo ñëpp ñu ñëw international bi xam ne tout la classe politique société civile les réligieu les chefs coutumiers ñëpp a ngi nii ci sama wetu taabal ji non may parrainage bi euh, détenu troisième candidature bi nga ne man kat dama bëggoon ñu ñëw ñu waxtaan ci lii troisième candidature bi kat man am naa ci idée seen détenu yi itam ngeen wax am na ci ñeen ñoo xam ne kat bañ leen jàppee lii ak lii ak lii ñooñu duñu ay détenu politique taalkatub réew li lu jëm nag ci wàllum euh, nu mu tuddati parrainage bii CEDEAO nee na lii ak lii ak lii te fii ak ñaari weer juróom-benn weer bu duggee ab coppite mënatul am ci code électoral yi parce que ñun kat dañoo signé charte CEDEAO dootuñ fi mën a laal dara kon nag ñëw leen ñu waxtaan lii lii gaaw bu ko defee ñëpp ñëw mais yow mais xamala moo tax sax kenn demul. Hmm. xam nga kenn parce que lañ fa war a waxtaanee yépp yàlla dogal na dañ ko fee waxtaanee waxtaanee waat ko fi waxtaanee waat ko fi waxtaanee waat ko bay bëgga a man nag du ma nëbbu man samay mbir dama ne ña man duma leen balaame duma leen xas duma leen wax lu leen naqari. ndax lan ah oui expliqué naa la sànq. Mhm. ñin man ay dara su ma amoon tey benn per boo xam ne bu ma ne ko teg. opposant yi bokk danaa ko defi